jërë ngeen jëf mbokk Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo di Bawal TV vendredi 23 ci atum ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekkati fay affiche solo reprise de compétition le premier octobre ci atum daañu tàmbali li xam ne nii moom moo de waaye les cagoules interdits dans l'arène journal sunu lamb xëy from fàcceel ñu lu mel Kankan journaliste sunu lamb bu xëy di ñu xamal ne day les quatre meilleurs lutteurs de sa génération journaliste sunu lamb ba xëy biral lu ni waaye ki nga xam ne nii moom moo di Siteu Papa Sow novembre ci atum 2022 seen première face to ko amal mercredi waaye mardi waaye ba tey journaliste bu xëy di ñu xamal ne 13 combats 10 victoires 3 défaites Pape Diop Beston fête honorée à Pikine journaliste sunu lamb xëy faram ci xëtum ñu fa ki nga xam ne nii Tine ak général bu Malika journalu sunu bu xëy jàll ci xëtum sunu lamb di wax ki nga xam ne nii moom moo di jeex jàmm la mu xamle moom moo di 3 sur 3 pour ki nga xam ne nii moom moo ci saison bi mu nekk waaye ki nga xam ne nii moom moo di fils de ba tey ki nga xam ne nii moo di Tyson day def li nga xam ne nii moom moo di ab saison balance waaye coupe d'arrêté pour ki nga xam ne nii moom moo di Gora Sock waaye ki nga xam ne nii moom moo di Gora Sock journalu sunu bu xëy na biral ay mbiram ki nga xam ne nii moom moo bébé bismi un défaite un victoire le journal sunu lamb bu xëy xaatim ci moom waaye kii jooy ba léegi te noppee guñ mooy ki nga xam ne nii moom moo di Khadim Ndiaye ministre des sports monsieur Ba moom Khadim Ndiaye day ma nga koy jooy ak ñu mel ni ñoom waaye ki xam ne nii moom moo di Yankhoba Diattara très attendu pour le monde de la lutte ñu ngi koy xaar bu baax a baax askanu lamb day ñi ngi xaar ki nga xam ne nii moom moo di Yankhoba Diattara di ministre des waaye ki moo di Sidi Diakhaté un drapeau Yankhoba Diattara à sunu lam ba xëy xamal ñu li li mel la maison de Tyson au Mariste journal sunu lam bu xëy na def ci yaatal ku yaatoo yaatoo bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jalgati lam kaa ñu fay fekk moom moo di Lac de Guiers 2 la muy xamle daal ma nga dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa association de lutte en activité kii di xam ne ni moo di njiit la di Gris Bordeaux moom la Lac de Guiers di waxal de la mu koy xamal moom moo di daal gars yi yëpp am nañu combat sauf man ñoom ñëpp dañu may daw te yow mi sax yaa ci rawat yéen ñi koy suivre lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Baol TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp le ko dale Thiès xombal bambayal tundankal mag sew kabak lañaar kër daam ak kër saer jàll dul ak patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kol dala ba ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta Jolof ñëpp actualité lamb ak Baol TV secondaire en troisième catégorie ancien gloire restez chez vous nee naa leen bu kenn dem lii de sa dàqate bi ngi ñëw ak Baol TV kenn du moom te ñoom duñ kenn ñu yendoog jàmm